Demba Guissé mu doon rendez-vous pour son cinquième anniversaire au CICES kañ e la le 7 janvier. le 7 janvier mooy vendredi bii. mbokk yi entrée 5000 VIP 10 000 Demba Guissé borom ayo bébé le 7 janvier. le 7 janvier mooy vendredi bii. au 6S e réservé au 77 847 47 47 xew-xew Bangok cey Demba Guissé au 6S. E le 7 janvier mooy vendredi bii. Ah, ça a agité quand même l'actualité. Hier seulement, je crois, le bureau de l'Assemblée s'est prononcé pour déclarer irrecevable cette proposition de loi saugrenue, proposition de loi insolite, étrange. Mais vous savez, le ridicule ne tue Mame Makhtar Gueye et compagnie, le regroupement des chômeurs religieux, le regroupement des chômeurs religieux, le regroupement des chômeurs religieux, avec l'association, avec l'association avec l'association des l'association religieux, les chemins religieux, avec les escrocs religieux, avec certains imams escrocs, menteurs, malhonnêtes, truands, des imams, je dis entre guillemets, qui sont dans certaines télévisions pour raconter leur vie avec qui sont que des faussaires, des gens malhonnêtes et mal intentionnés, et d'autres qui sont des, entre guillemets, des djihadistes, des terroristes. Je pèse bien mes mots, des terroristes, des terroristes, des djihadistes. J'ai même vu dans le groupe quelqu'un qui a été arrêté pour terrorisme. qui est resté quelques années en prison et qui a eu la chance de rentrer chez lui. Après énormément de pression, j'ai vu parmi eux des gens qui ne veulent que l'instauration d'un État islamique au Sénégal. Des gens qui veulent une république islamique avec des députés en mal de popularité, des députés qui n'ont aucune base. <laughs> Regardez mon doigt. Des députés qui accompagnent ces activistes religieux, entre guillemets, qui ne sont rien de, qui et qui ne sont point des religieux, mais des escrocs religieux qui font le tour des dignitaires religieux, des notabilités religieuses. Ils vont voir nos éminents marabouts que nous aimons tant pour raconter leur vie. Je m'adresse maintenant à ces marabouts. di wax sama sëriñ sëñ Mountakha Mbacké sëñ Mountakha Mbacké borom réew ju neex gi yàlla na fi yàgg ci wér ñooñu di ñëw di taxam tambaambaar ji amuñ liggéey nga xam ne seen liggéey mooy di wër di wax rek di xamul ci dara moytu leen ñooñu li di wax du ci dëkk sëñ Bay Si Mansour ah sama xarit yi ñeme dëgg borom Tiwaawan a ngoog maa ngi koy nuyu yàlla na fi yàgg te wér sama xarit Serigne Maye Niass sama frère yu bokk Kaolack nangaan bokku dëkk bi doomu Baye Niass waa waa Laayeen yi waa ko waa Kuuta Njaasaan waa jàng bi yéen lay waxal am na loi boo xam ni depuis 1965 ak 1966 dañ ko tabax liggéey ko ni képp ku def yëfi góor jigéen yoon dina tas kaw tëj la tëj yu méttee métti dañ la tëj duma la président Macky Sall def ki nii bu fi Barack Obama ñëwee ni ko damaa bëgg président nga daganal sëy góor a góor jigéen ak jigéen mooy nga daganal ngóor jigéen Macky Sall ni ko ba bi ma fiy jógee ba ma fi jógee tant que maa fi nekk président loolu mënu ma la koo may loolu mënul nekk ça n'aura jamais lieu le Sénégal ne va jamais légaliser l'homosexualité. Le Sénégal est profondément religieux. Et les vertus cardinales de notre peuple ne nous permettent point de légiférer dans ce sens, de légaliser l'homosexualité, de la dépénaliser. Non, a dit le chef de l'État. Non, a dit notre auguste Assemblée nationale. Félicitations à mon cher ami, juriste, maître d'Ibrouard, le député africain, honorable député sénégalais. Merci pour ce travail remarquable que vous avez fait au sein de l'hémicycle pour rejeter cette proposition insolite de criminalisation criminalisation de l'homosexualité mais dañ leen liggéey tambaambaal bi doy na quatrième et dernier point les élections locales. Demba Guissé donne rendez-vous pour son cinquième anniversaire au CICES e kañ la le 7 janvier. le 7 janvier mooy vendredi bii. ah mbokk yi entrée 5000 VIP 10 000 Demba Guissé borom ayo bébé le 7 janvier. le janvier mooy vendredi bii. aussi CS réservé au 77 847 47 47 xew-xew Bangok cey Demba Guissé aussi CS. le 7 janvier mooy vendredi bii.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 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax